salaamaaleykum mbokk yi nuyu nañ leen bu baax a baax euh, di wax ne rek euh, dellu siwaat ak yéen ci seen télévision 7 TV la télé qui nous ressemble et nous rassemble ci seen émission 7 voix du cœur tous les mardis 21h bu jotee. ñu ànd ci ak yéen jamono ji may wax ak yéen ñi ngi fii ci fi nga xam ne rek mooy Ngor virage ñu ñëw seet si suñu benn rakk suñu doom suñu mag muy ki nga xam ne rek mooy Fatmata Fatmata nag doon koo xam ne rek euh, dafa tawat tawat boo xam ne bu yéeme la ndax nag dafa daanu ñaari yoon daa njëkkee daanu damm ñu daal di koy opéré mu daanu waat ci même euh, opération bi euh, daal di euh, damm ba pare yax bi dafa damm ba pare daal di génn lu yéeme muy loo xam ne rek lu métti métti métti la ñu dëkk fii ci virage ñàkk moyen lool ndax nag jamono ji may wax ak yéen xale bi ñu ngi ko war a opéré mi ngi toog yax bi ni mu génnee noonu nekk ci biti mënuñu ko dugal mënuñu ko faj damatul sax daanaka hôpital ndax nag amul moyen yu mu fajoo muy loo xam ne rek métti na torop léegi léegi dinañ ko découvrir balaa loolu ñu dem euh, nuyu ki nga xam ne rek suñu papa la euh, nga xam ne mag la ci euh, papam papu Fatmata ñu bàyyi ko baaba salmine on alono mbaɗɗa jam tan ɗo selli ma suude alhamdulillah ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ma bàyyi la nga nuyoo sant yàlla on jaarama mhm. jërëjëf waay tur la Yero Diallo. Yero Diallo lan nga doon ci euh, Fatima. Fatimata nu mu sant Balde. waaw non Diallo. Diallo Diallo Fatimata Diallo. lan nga doon ci Fatimata Diallo. Euh, man papaam bu mag la. Mhm. waaw magu papaam. la quoi. Mm-hmm. waaw. Euh, ñu ñëw fii seet si ko euh, gis nañ ne condition de vie bi métti na maanaam dundin bi dëkkuwaay bi euh, lépp métti na waaye li ñuy wax ne dëkkuwaay dina métti sax boo ci boolee wérgu yaram problème mun naa bañ a am mais ngeen nekk ak malaat boo xam ne sonn na jooy na ba sonn yuuxu na ba sonn mais ba nii nii amul benn tan muy Fatmata ma bàyyi la rekk nga wax ñu yëf yi naka la demee ak naka la tànk bi demee. Ah, Euh, c'est que moom feebaram bi dafa xaw a yéeme. parce que ni mu ko déparé woon ci feemel feebar ñaari feebar loko bi si ndeyjoor bi moo amoon ak après bon bon kooku ak tànk bi yëpp la ñu woon ndoor Dakar fii. Mhm. bi ñu ko opéré bi mu jógee kii maanaa tànk bi dafa doon néewi rek parce que si si waame ndox bi la ko dalee. dafa mhm. demoon di sangu ji. affaire bi foofu la ko dalee. Mhm. bu mu ko dalee après. loolu fan la woon Guinée wala Sénégal Guinée waaw waaw Guinée. après la ko affaire bi dalee ñu xool foofu pour faj ko mun ñu ko faj. Mhm. après ñu indi ko fii dem nañu si ay ay affaire nit ku ñuul fu ne. Mhm. daw nañu fu ne du nit ku ñuul garabu tubaab. mun ñu ko am après ñu ne ko dem leen ngeen yóbbu ko Dakar ngeen kool ñu indi ko fii fekk sama doomu mag encore bu jigéen mooy magam mhm. nga am ne ñooy bokk papa kooku toppatoo ko fii ba yàlla def daal mu ñibbee ni ñu ñëpp ñu bokk di ko jàppale ba yàlla def mu opéré ko après bi ñu ne tànn na mu daal di delluwaat Guinée bu mu demee ba àgg Guinée mhm. la jékki-jékki rek fu mu taxaw noonu si marché bi la tànk bi mu ne kelec damm mhm. mu damaat mu damaat même tànk bi même si loxo bi moom sant yàlla moom macha allah parce que tànn na waaye tànk bi moom instant nii boo ko gisee macha allah. kon nag euh, li ñuy def mooy dañ koy dem xool suñu rakk jooj di Fatmata ñu xool euh, naka la koy dundee waaye booba tànk nga xam ne euh, comme niñ koy gisee léegi léegi ñu dem xool dellu soit ci yax bi moo génn muy lu garaaw ah. léegi léegi lay doon sur la 7TV ci seen émission 7 voix du cœur. ko Guinée mi woon na na ci lam la yee ko caango ko tonkoy ngalangal muusi la merti ka suudu nee na ngati tay mi naaw ni ne woni toon ha duuɓi jeetatilan waali ɓe ƴettilan ɓe addi sénégal ga mi waɗi mi hewti guine lan yehi kay ni duggugol lan dari ga heeli ɗon kadi mi arti sénégal ga gila men ari baba en kati nomi heɓira lekki kono ko moyen on woni ɗoɗa ɓe geri han ɓe ɗon woni heɓaki pour no min yara ko hôpital kala ko min waɗana meɗen notade kono ko mbuɗi ɗumen waɗana ɗum woni timmali ko ɗum haɗi men yakobi tan ngal musilanguine toon ha ɓuuta yalta ko yaltiwomi sorta ƴiyal koyɗe an ɗen mi itta ɗon sella wona kay ɗon ha memmino ɓuuta kadi yalta continiri ɗon ha mi ari gam waɗi opération mi hoti ngal heliti kadi sima ɗo kono gila mi ari sondia waɗi sina wano ɗo ni mi wata yaade e nokku tunan jooɗi tunan jooɗi si ɓuttay ɗo ha si woni ɗo seeɗa kay memmin tina musalan ka nder ƴiye jooɗo mi wulla habaɓe arina mi fanko iway ɓay kolla muyi ñande gara e wi mi fanka musilan ɗon ha nenan fo inna yomi fanku kono gila mi ari baɓe nage nena no gerɗe ɗum heɓira lekki kono ko moyen on woni ɗuɗiramen baɓe ga ko saye liggoyi wo ligganoyi goɗɗo jassigay kama tappere siɓe heɓa mbuduru ɓe geri han ɓe ronki nomi heɓira lekki gila men kono ko moyen on woni ɗuuɗa mi tori julɓe allah ɓen koɓe wallitola mi heɓa lekki no mi ñawdora allah jonni e jam moƴƴere ko ɗumi tori jaman fo dama lu mu wax bon bii mooy ñaareel bu mu damm nekkoon na gën bu nekkoon gën a Conakry damoon na ñu indi ko fii nii ñu opéré ko après ñu delloo ko foofu mu nekk foofu mu demee mars la bi ñëwaat mu dammaat léegi boo léegi bu ñu ko indiwaat fii nii ñu ngi war ñu ngi ko papa mu ngi war fu muy amee xaalis pour ñu bàkk opéré amagul moyen boobu na oyo hono mbaɗa ha koyngal jangal wuɗɗi hono mi waɗi ha hmm. koyngal ngal yalti tun ko ɗon ngal waɗi kaw ngal heeli ko ƴiyal ngal taƴi mi yeehi ko hôpital tawi ƴiyal ngal ngal taƴi ko gonga go sorti yalti ɓenni min ko konakiri directement sénégal ko mbaɗi ga opération ɓaɓe ayni ƴettuma imma ma en sénégal tomi daarasi mi heɓa ɓay ko to ñawdiɗa noy biɗen toon kadi lekki on saysi men ari ga o ngal heeli ko ɗon tun ƴiya ngal yalti tawi ngal taƴu ok moom nene moom fu mu taxoon deful dara fu mu taxoon foofu la kii bi yax bi foofu la damm ki yax bi génn waaw yax bi génn loolu maanaam liggéey adduna rek la nu mu taxaw rek yax bi génn léegi ba léegi nit tànk bi day métti après gars yi yóbbu ko hôpital Conakry Conakry neen il faut mu dem indi ko fii Dakar pour ñu opéré ko fii ni bu ñu amee xaalis léegi moom lay liggéey ba léegi nii amagul xaalis boobu. si ko Guinée si ko Sénégal kala jenditude ko moni wolde kon wallitolanno mi heɓira lekki min kadi allah jonitalan hoore an ko ɗumi toriɓe oyo hoko ngal muusuta kono keeliɗi mbanno opération ko junngo ɗo e ko koyngal kono junngo ngo gila opéra ɗum ɗo min mintinaki koyngal ngal lan darini fuu si muusutala nga heeli ɗon bon moom loxo bi dañ ko opéré mais moom loxo bi bu ñu ko opéré ba léegi moom tànn tànk bi rek moo ñëwaat léegi moom lay ñaan waa Sénégal waa Guinée Guinée ku ko mën a jàppale nga mu jàppale te yàlla tax bu mu amaat boppam te instant yi tànk bi moo ko gën a métti ba léegi ni tànk bi moo gën a métti tànk bi day dem ba jëkk-jëkk rek néew mu commencé waat ay génne ay der waaw léegi instant yi loolu moo koy sanal jërëjëf kon nag euh, ñoo ko gisandoo muy lu metti Ah, euh, tànk bi euh, yegg na benn stade boo xam ne foog ñu jàppale ko ndax nag lii euh, xaar bi mënatu ko tànk boo xam ne yax bi dafa génn gis ngeen ni mu koy takkee ay morceaux lay jël takk ko ndax dematul hôpital Mm, koo xam ne da nga daan am ay ordonnance ay cent cinquante mille ordonnance di am ay euh, li nga xam ne rek euh, mooy euh, yenn coût ay trois cent mille opération ay yeneen ak yeneen yoo xam ne avant tànk bi yax bi di génn la kon jamono jii nga xam ne rek yax bi génn na naka la war a demee lan moo koy faj lu mu ci mënti doon ak ñi ngi tàllal suñu loxo di ñaan dimbal ma bàyyi ki nga xam ne rek mooy magu papaam mu daal di ñuy wax ci yëf yi ca njëlbeen naka la demee woon ca Guinée. si Guinée bi ni ma ko dalee ñu xool fu ne amuñu mënuñu ko toppatoo foofu parce que ku mm. ñu yegg di wàcce mënul sotti ñu am ku ñu jàppale mu ne ko docteur bu jóge Conakry kooku ñu ngi ko yóbbu foofu mu ne ko maanaam yóbbu leen ko Dakar mm. parce que boobu lay ko mun a faje ñu jël ko indi ko foofu ñu faj ko fi premier faj bu yàlla def jàmm bu jóge fii ñu delluwaat ko Guinée bu mu demee Guinée la toog jékki-jékki plus un mois encore mu waat mhm. ñu jëlaat ko foofu ñu indi ko fii bi mu ñëwee fii ba léegi ça fait neuf mois ñu ngi daw ak moom. Mhm. Euh, jëlee ku damm euh, tànk bi mel noonu Guinée indi ko fi métti woon na. métti woon na trop. Mhm. parce que dafa moom rek ci ci benn ginnaaw oto bi 505 bi. parce que tànk bi daf koy talli bu ko talliwul du leemu. waaw noonu lañ ko indee fii parce maanaam quatre place lañ ko jëlal benn place. Oh. après nii la ñëwee fii ba yàlla def daal ñu ngi daw fii ça fait neuf ma ni ko yàlla defee ma dem fii nii dox dox dox ba sonna ma xam ne xamatuma ci kaw ak si suuf ma daw woo sama xarit bi tudd Papa Cissé. Mm-hmm. Eh, sama xarit baxan la. Mm-hmm. parce bi yàlla defee ba ñu boole ñu depuis ñu nekk ay tànkale ñu reeroo mm-hmm. ba ñu gisante ni si année yi quoi. yàlla def ba bis tey bi lu ma jàpp ñum ñaar la ba mo mun a daal il faut mu taxaw si affaire bi mm-hmm, moom léegi na moom Pape Cissé moom Pape ba tax na dañ koy dem seetaan gis ngeen ko mu nekk senegale euh, nekk seen biir ñoom ñu nekk ay guinéen euh, jóge fële gine euh, Guinée waaye nag wëllëre dugg seen diggante ba lu bëri bëri di ngeen ko dégg léegi léegi sur la 7TV nañ dem déglu ko seen rakk jigéen sa sa tey suma xarit tuddee ma doom amoon problème boo xam ne ne xale bi dañ ko war a opérer bu ñëw wax ma ko boobu ba tey maa ngi si daw dugg fu ne te dara sottiwul ma ñëwoon fii pour ñu jàppale ma te yàlla tax ak yonante bi ngir yàlla gaañ bi la si jëkkoon a damm ñu yóbbu ko yaasoo tabax ko opéré ko defar ko mu dem affaire bi sutewaat mu demaat léegi bi ñuy bu demantee Yaasoo gars yi defal ko xool tànk bi mu def rajo def na yooyu yëpp bilan am yëpp tout ñu ne léegi pour ñu opéré waat ko foog mu dépensé xaalis te xaalis bi muy dépensé seen waa kër vraiment ñu ko. yax bi dafa génn si biti te génnul woon si biti temps bi ñuy def bilan bi. yaa neuf mois bi nga ko teelee dalee toppax léegi am na neuf mois yoo xam ne ñu ngi si topp di daw fu ne pour nit ku ñu si dimbali pour ñu mën ko opérer. actuellement kenn def si dara parce que man bi ma ko fekkee hôpital bi ma jëkkee euh, fii hopital suma xarit bi ooma hôpital keroog bi ma ko gisee dem naa ba si médecin bi ko waroon a opéré muy docteur Mbaye bi nekk Yasso ñaan ko ndimbal wax ko ko parce que man université laa nekkoon munuma il faut mu fay pour ñu mën ko defaral affaire bi man nag maa ngi si daw boobu ba tey waaw am naa ay autorité sax yu ma dem seeti mais comme que seen waa kër ñi amuñu carte d'identité sénégalais foo déposé dossier bi dañ koy rejeté ah foo moo ko déposé rek dañuy dañuy rejeté aide aide sociale parce que yoruñu carte d'identité fii quoi loolu moo tax waaw man ñu doon sàkku ndimbal nag pour ku ko mën a jàppale si si tànk bi quoi. yërëm ko trop te xam naa ne métti na trop te fu mu toog aussi gaañ bi day xel li waaw boo jëkkee gis suma yaram day daw maa ngi lancé appel daal pour ku ko mën a dimbali te yàlla tax nga dimbali ko te yàlla tax lillahi wa rasuli quoi jërëjëf euh, kon nag euh, foofu lépp am na fa ndax fu ñu dem ba wóllëre nekk fa ba ngeen tuddante doom mu doon loo xam ne lu neex la ba tax na nag bu mu metti mu ñëw taxaw ne du ko seetaan benn yoon moom xaritam euh, muy ki nga xam ne mooy papa xale bi waaye magu papam aussi ñoom ñëpp ñuy ànd ba tax na fi mu ne nii benn solution la ñuy wut ñu leen ciy jàppale muy maanaam utal xale bi lu mu fajoo ndax li muy dund metti na trop trop trop baba ma bàyyi la rek nga daal ñuy wax ci Fatmata ay guddi yi naka la koy dundee. waaw jërëjëf merci guddi bi moom dina dina nekk di joy si guddi bi ba papa ji sama rakka bi di ma woo mu ne ma père kii mag ma ne ko ah, mu ne ma ñëwal bi nga jàppale mi si. Mhm. sama doom bi ndax moom mu ngi jooy yow rek yaa koy mun a wax daal mu mun a dégg. Mhm. man su ma ko waxee da yaakaar daal nekkuma di ko toppatoo pour jàppale ko pour ñu mun a koy faj. Mhm. ma ne ko def leen ndànk rek maa ngi wax si ñun ñaar ñu ngi dugg fu ne. di dugg di génn. bés bu yàlla defe ñu am ndimbali ci booba yàlla dinañu jàppale parce que l'essentiel ni dugg nañu te gars yi ñu ne nañu xaar tuuti parce que am nañu ñu jiitu mhm. il faut léegi ñu togg dégluñu waaye waaye ci biir ndimbal bi ñu ngi may wax euh, amoo leen euh, carte euh, carte d'identité yenn yenn Sénégal dañ leen koy laaj yenn saay ci wàllu action social yu hôpital yi waaw man mm. si consulaire euh, Guinée laa yore waaye mm. consulaire bi c'est man Côte d'Ivoire laa juddoo magoo fii mm. c'est dem na war naa ba sonn pour am si papier parce que dafa lakk kii xam na ko mm-hmm. si cité bi ma nekkoon sama rakka laa fi doon bàyyi sama yére fu ñu doon garder noonu après saako bi lakk sama ginnaaw. Mhm. ba depuis booba na am na ni ay cinq ans mënu ko jot. Mhm. ba léegi ma def consulaire bi pour maanaam ma bañ a nekk si te ma kay. te tombé aussi sama doom bi doon si Nabir Siker kooku tamit tombé si auberge ay feebar bi mooy dernier jour yu ñu amoon moom laako ko tuddee papa Cissé mi. Mhm. léegi loolu yëpp am na ay jafe-jafe ba yàlla. def ah, loolu mooy période Covid bi. Euh, xale bi juddoo woon. waaw buntu Philippe Senghor Philippe Senghor bi. Mhm, ñu koy fàttaliku loolu dem na ba peesu. Mhm. ba yàlla def affaire bi demee noonu. léegi sama kii nii sama tuut bi nga xam ne sama xarit la bakkan ànd na moom ba Guinée gis na sama yaay ba sama yaay di ko lu ne ñaanal na ko. moom am na leneen lu ma yàlla mayoon. Mhm. limeer bi li ko yàlla mayoon te fekke mayu ma. moom la ko jëkk ñaanal mu ne ma gis nga kii moo tama ma lay ñaanal lii bu dul loolu bu duloon kii du ma la ñaanal la yow sa xol bi mm-hmm. dafa baax mm-hmm. te aussi da nga gaaw si ay wax dëgg mm-hmm. ma ne ko noonu xam nga aduna yàggul amul solo solo te yàlla defu na ne moonta man du ma am fii benn problème nga am ne jafe-jafe te moom jiitu. moom taxawul waaw taxawul ndax euh, requête bi sax si moom la jógee yàgg nañu topp yàgg nañu topp yàppale leen ma si doom yàppale leen ma sama doom euh, xaar bi yàgg loolu waaye nag mosula xaaddi mosuñu mosula bàyyi ndax euh, bëgg lu rek faj am jafe-jafe sama kër mooy taxaw mm, moom mooy taxaw bu fekkante ne am na jafe-jafe si këram mm-hmm. su ma ko waxee si fe bu ko wax mm-hmm. bu ko def arrêté na arrêté na lool dëgg la loolu mooy ànd waaw loolu mooy ànd mooy am solo du ñu mm-hmm. nobante dara ba ni mu ni taxaw si affaire bi mais ni mu yàlla defee ngeen sotti ñi mm-hmm. ma jàppale na ngir yàlla yeneen bi mm-hmm. parce que xale bi guddi wallahi dafay jooy ba mag papaam di ma wo koto kaay jàpp si parce que yow yaay di wax doom bi léeg-léeg ma déplacé foofu si fajar ba ñëw fii ni gis ko ma ne ko noppil ñu si affaire bi ma ko lii la ñuy depp toppatoo léegi xaaral fam ñu ñu wax bu ñu ñu woowee rek dinañu ñëw bis bu ñu ñëwee affaire bi dina baax bu sottee mhm. soobee yàlla après noonu lay nekke be après mu noppi waaye ba dem na ba léegi moom mu jël sama numéro bu mhm. bu papa ji bu ma woowul moom may woo ci papaam encore bu mhm, ndaw mu ngi loolu yaakaar la waaw yaakaar la parce que man maa koy moo xam ne nii dëgg la papa ji dem na mu ne daal papa ji ay liggéenti lekke la doon toppatoo pour kër gi te mam tamit déggul dara mhm. bu ñu ko woowul du mun a liggéey dëgg la dëgg la te man dama dëgg la tamit euh, feebar feebar foog nga lekk pour nga mun a taxaw euh, ba tax na dañuy dem xooli yaayam tamit naka la koy dundee loo xam ne rek lu métti la aussi nga am doom tiim ko mu nekk ci métit fanaanoo ko mënoo ci dara li ko war a faj xaalis la yoroo sax loo téye pour sa dépense que waxatuma la loo fajee nit lu ñu fay fay euh, nii lu mu tuuti tuuti dañu fay deux mille cinq cent pour yóbbu ko yóbbu ko hôpital demaat ñëw six mille nañ dem seetaani yaayam dañu si waat léegi léegi sur la 7 TV ci seen mission 7 voix du cœur ko ɓiɗɗande woni o sella duuɓi boyi komin o jibini mo ɓeeɗo woni bam makko kono duuɓi boyi mi yanngike fii makko on nawnuno ɓandu ndum ɓuuta yiyeɗen yalta kono ɓenni men ko lekki ɓale min jindi ha ton min heɓali min naɓimo konakiri ɓenni direct dakar min addatamo ay min addimo tawi jaaje makko no ga jaaje makko wallitimin o opéra ɓe itti modi ko boni kon fof ka koyɗe o hooti ɓayi hooti wontal ɗon hay émois tayyimo yahi maakiti mo dari ni tun hay hunde waɗamo wo koyngal ngal ngal waɗi pansan ngal heli ɗon min noon hilanka suudu mi yahaali maakiti ɓe neloye goɗɗo yomi yahoy ka maakiti mi yahi ɓe tawi jamanu no mooɓi e hoore makko ɓe ƴettimo min yehi kadi ka hôpital on ko ton kadi min yahata tawi tigi tigi on joni an ni min moyen ɗuuɗa ala kam few hande kadi depuis o nawni piiji amin fof min yeeyti hay komin ñaama ko si julɓe allah ɓen wallima min heɓa komin ñaama ha bammakko tawi min kay mi sellami yeehi konakiri bammakko ƴettimo addi ga min kay mi ga min min min wallidira fi no heɓira lekki so tawno haramo selluno harayno jombanoma ha o jiidike goreɓe makko fof jombanoma kono ko allah woni hoddirali ɓandu makko ndun ko muusatamo wo ko koyngal ngal ngal ɗon noon kala ko fuɗɗimo muusude si woni ɗo wano jiyango hara ƴiya yalti nane nan daare ɗo ƴiyal kadi yalti min naneni ami mara feere fof ko si allah itti joni noon komin toroton saabi allah koyon wallan wallon min ka ballal ɓiɗɗal ngon heɓa lekki ko ɗum min tori moye noon hay fof si hannde kadi ala ɓaynamin yeeyi goɗɗo hannde kadi moyen hay fof si ala noon tigi on suti e kammin woni ɗon sa goɗɗo yewi kine konakiri ari woni e ɗum ɗo min waɗali luwasi ko ɓay moyen hannde kadi ɗuuɗa sina ɗum harayno minen kadi naani haray komin tori on kon saabi allah koyon wallitomin no ɓiɗɗan on heɓira lekki e jammoƴƴere si tawi ko ɗum de allahu taala on haaji ba makko ko bero ɓe yalti ɓe golli ɓe o wi ko berkomi jindata ɗo mi walla yimɓe golle ko berko mi heeɓi ɗon 3 mille 4 mille mi adda ɗum ɗon min mottidira hay fossi woni ala woni konakiri woni dakar mon porto kange leyɗe ɗen kala min torike on ballal saabi allah koyon wallita men ɓiɗɗa on kan so holli on koye ngal ngal hay si on yurmetake songima wallahi on yurmetamo ɓay ƴeeɗen fof gayni sortade o suuɗata holla on kadi koye ngal ngal o holla allah sabi allah kala mon protocole leydi ɗen woni woni konakiri woni dakar haray ko yo wallito men min nene makko moyen ala hannde kadi piijian ɗin fof mi yeeyetino bam makko kan haalaka bam makko kadi yanginoke joni ha ha ɓe joɓɓiki andude koɓe golla si moyen no woduno depuis min ari ɗo harayno heeɓino lekki kono moyen ala jërëjëf euh, kon nag ñoo ko gisandoo euh, gis ngeen xale bi tànk bi metti na yenn saa muy xelli euh, day xelli direct mhm. benn yàq bi génne oh. mënuñu ko man damay ñëw fii léeg duma ko mun a xool ndax su ma xoolee rek damay jooy mhm. ndax demoon na ba problème bi lépp mu jël ko teg sama kaw ak Cissé mi mhm. ba mu ne ma ana papa Cissé ma ne ko papa Cissé mu ngi waka waay bu soobee yaakaar rek yàlla dina sottil mbir bi yëpp waaw nañ na muñ nga xam ne lii nii mbir yàlla la mu ne ma père man sax jaaxal na ma ba munatuma xam munatuma lekk ma ne ko déedéet bul bañ lekk aduna loo ko gisee noonu téye ko noonu mhm. waaye dangay a gom yàlla nga xam ne lu met metti nit day dee day mhm. waaw mu ne ma waaw maa ngi muñ waaye affaire bi metti na ma ne ko mhm. dangay muñ. ku ko gis xam ne metti na métti bu yaxam génne kay kooku uh, macha allah. Mhm. ku ko gis xam ne métti na. léegi nag yan moment nga dund ak moom yi gën a. ni ma yu gën a métti ndax tey jii déglu nañu yaayam. waaw naam dëgër na waaye ku ko dégg mu wax xam ne xol la waxee. wallaahi. Mhm. Eh, kii moom ni ma ko mun a kii yenn yi demay soppeeku joge joge fale ñëw di ko indil ay lekke yu neex waaye du tax mu lekke ko. day xalaati ay métti métti tànkam. mu may leemu tànka bi mo na ma gis nga yax bi génn na ah. bii day woddu ma ne ko non du woddu mm. parce que yàlla moo koy tee yàlla moo ko génne noonu waaye yàlla dina ko jàppale yàlla dinañu jàppale si mbiru mm, yi mm. muñal rek ndax ni yaay ji aussi ma di wax ma ne ko muñal rek sa jëkkër toogul booy gis chaque jour muy tilim di liggéente ay njaboot lu mo six xale encore dafa métti dafa métti waaw léegi dama leen di ñaan rek ngeen muñ ñu jop jàpp si yàlla ñu xool naka la ñu defee mhm. waaw l'essentiel ñun ñu ngi leen di ñaan ngir yàlla ak yenente bi du Guinée du lépp ni monde entier ku si man nañu jàppale ngir yàlla a yenente bi mhm. waaw euh, ku si mën nañ jàppale ndax ñàkkul yaayam ay wax yum lay wax yoo xam ne di ko dund ak ñoom wa yaay ji moom c'est que dafa déggul jëkkër ji moom ko wax ni defal nii defal ni léeg dina ko wax daal jëlal xale bi nga yóbbu ko ñu nga jëndal ko ay ordonnance ci ci pharmacie bi moom mu ne ah man daal pour yóbbu ko foofu affaire bi dafa métti si sama kii bi. pour hmm. dem foofu gars yi sakki suuf di ma gis dama damay jooyatu si si ma mu ne ma non non forcer rek nga dem parce que man demay xëy fii nii di toppatoo ni ñuy añee walla ay kii. Hmm. déggul dara olof. dafa déggoon sax mu xawartan kon ko déggul. loolu mooy bari yërmande bi. Hmm. ñoom ñëpp dégguñu tus. dégguñu olof waaw xale bi moo tax ñu déplacé Guinée ñëw fii fekk ma fi hmm. te man daw naa daw premier ba sonna trois cent xaw ma trois cent cinquante et quelque te wa benn waa ji lañ ko jiitaloon ci affaire bi loolu yëpp kooku daw na ba métti. Hmm. benn mu yàlla defee mu dem nii Guinée ba ñibbi si kër tamit encore wax dëgg yàlla colonel Baye dañu ñu toppatoo. wax dëgg yàlla. bi ñu duggee kii nu mu tudd. yaaso yaaso. Mhm. ba léegi chaque jour mu ne leen demule rek ngeen jàpp si dinaa leen jàppale incha allah ba ni tey yàlla def ngeen ñëw tey di ñu jàppale ñu ngi ñaan ba tey moom mu gën a jàppale ñu. Mhm. si ngir affaire bi. Mhm. ngir yàlla di ñaan koo xam ne nga xam ne kii nii si ci nañu jàppale ngir yàlla ak yeneen bi. waaw parce que métti na trop si ñun. Mm-hmm. waaw waaw métti na trop si ñoom ba tax na dañuy dem seetaane li des si témoignage laata ñuy tàggatoog ñoom di wax na nag eh, yéen ñi nga xam ne yéen a ñu dab yéen a ngi ci seen télévision 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur eh, ci li nga xam ne rek mooy li xew ci dëkk bi. tey jii ñu ñëw seet si Fatmata Diallo muy ndaw boo xam ne xale bu ndaw la mi ngi am fukki at ak juróom-ñett. doon koo xam ne rek euh, problème mu tànk la am ginnaaw bum ko njëkkoon am tànk bi di metti ñu opéré ko mu daal di tane da cee daal di daanuwaat daanu ba nga xam ne daf cee dammaat damm boobu tey jii euh, ñàkk paj dem ba tax euh, yax bi daal di génn ñàkk paj bi nag du tayal dem hôpital du bañ a faju du dara mais nag ñàkk moyen ndax boo déggee hôpital xaalis a fay dem Euh, te boo amul xaalis yenn saa yu bëri yi nga bëgg a def doo ko mën a def ma ci li nga xam ne rek mooy ordonnance yi jamono ji ñuy wax ak yéen gis ngeen tànk bi ni ma mel yax baa ngi ni génn nekk ci biti waaye lenn rek leen ci man mooy jëndal ko garab yi nga xam ne mooy calmant yi mu di ko naan pour may doon leeg li nga xam ne mooy ay antidouleur à part loolu jéemaatuñ ci lenn ndax mënuñu ci lenn lañ mënoon yëpp def nañ ko la ñu amoon ci xaalis def nañ ko ci première opération bi daal di jéem euh, daal di def waaye nag ba nii nii ñuy wax xale bi mi ngi toog nekk ak méttitam li ci gën a yéeme mooy morso yi nga xam ne moom lay takkee tànkam du am benn hygiène euh, yéeme na yéeme na yéeme na ndax pansement sax mënu ko dem pansement ndax loo xam ne dañ la tiim na la opération kese moo ci mën dara pour delloo yax bi ni mu meloon Euh, ñu am nag médecin yoo xam ne jàpp nañ ci li ñu mën waaye nag dafa fekk ne faju moyen la faju dafa laaj moyen kon nag euh, képp koo xam ne rek euh, mën na leen dimbalee nga daal di leen dimbale ñu dem xoole li des ci témoignage daal di soit léegi sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur. madame moom avant may jógee Guinée Bissau ñëw naa fi ma gis ko ma fekk tànkam dafa tàmb papam ma laaj papam après ma gisee tànkam nu mu méttee nii papam ne mu ngi mu ngi yor xale mu ngi war ku koy jàppate yàlla te yàlla tax pour booy mu faju pour tàng bu weer taay yëpp moom loolu lay dawee fan yëpp mu ngi taw mais toogatul jotagul xaalis li mu koroon ba pare yi moom wax na xaalis bu bëri lañ ko laajoon mais bu léegi nii matalul xaalis boobu noonu instant noonu lay dawee ku koy jàppale boo xale bi wéeru waaw instant noonu lay dawee noonu de dund bi muy dundee boobu dafa metti te ansaay tànk jàppal ñu ko tànkam bu mu wér ansaay ko gis la da bi moom mooy loolu fii la commencé fii la dàmb xam nga moom balaa muy weer ah coono la de waaw te bi mu génnee loolu fekkewuma man ni may doxee dañ ma waxee yàq bi dafa génnoon ba léegi mosuma gis yàqam waaw te loolu xam nga ma ay jigéen la ñëmu ñëmu koo xool en na ko ñu benn kër man fee laa ne te damay ñëw fi yeneen fois bu mu amee ma jàppal leen. ñaan la ñu ñaan ku fa mënuñ jàppal te yàlla tax ñu ngi koy ñaan mu jàppale ko te yàlla tax boo xale bu weer waaw loolu la ñaan suñu borom si kër ba mën a jàppale mu jàppale ko. jërëjëf euh, kon nag alhamdulilah alhamdulilah tàllal leen loxo rek euh, di leen fàttali ngeen jàppale ñu ci suñu doom bi jigéen la xale la lu bëri mi ngi ci kanamam. moo war nag eh, jog tànk bi weer ndax nag buñ ko bàyyee nii liñ naan le pire mooy ñëw tànk boo xam ne yax bi génn na mën nañ ko bàyyi nii mi ngi soox ak moom mais lii amul amul mucc du wéy du wéy mën na indi beneen beneen beneen jiyee maara dem si yàlla buñ ci yegg waaye nag laata loolu ñu talal leen suñu loxo képp ku ñu ci mën a jàppale rek ci numéro téléphone yi mi nga xam ne mi ngi koy waaj a joxe moo doon eh, numéro famem nga woo ko directement jàppale ko ci loo mën euh, ñun nag 7TV euh, euh, ñu bàyyi rek ki nga xam ne rek mooy magu papam mu daal di ñuy waxaat baaba wees ñàkkul bës bi nga xam ne moo gën a metti diir bi la amee ba léegi mhm. ban bés nga dul fàtte bés boo xam ne yow sax amaana li ngay dëgër yëpp saalit nga ndax metti waaw waaw ñetti ñetti biyaasi moom ñu ngi di metti lu metti bu metti ban ak ban demoon nañu ba benn bis si mënatuñu am saa paas pour ñibbi benn waaji bi dekkoon eh, cité avion moo ñu ñu lebal deux mille cinq cent. passe pour ñibbi fan léegi si hôpital bi pour ñibbi si fii. suur boobu wallahi dañu jënd ordonnance ba mu jeex. Hmm. mënatuñu ñibbi. mu jëntel bi dañu tombe ndox bi mu ngi taw mënuñu ñibbi te taw bi fekk nañu si tali bi. Hmm. mooy ñaar yoon. deuxième bi dañu jóge fii jaar ni dem ba passé école eh, eh, naari yi fii. ci ci biir almadi bi di génne. day dox. waaw non non doxuñu moom dafa doon dañ doon dem si taxi. taxi mm. bi paan. Mm-hmm. taw bi ñëw fekke ñu foofu. Mm-hmm. loolu yëpp yàlla defu na ko fii diggante bi waaye alhamdulilah la mm-hmm. alamin. Euh, bi leen waa ji abalee 2500 pour retour. daa mel léegi man kaw sa xol waaw doy na ma sama kool parce que ba léegi maa ngi laajte ñëw naa ba cité avion pour laajte ko tuuram bi laa pour ma mun a xam fan la dëkk si cité avion mooy côté juma ji. Mhm. nee na ma côté boobu la déggee tuuram bi laa fatte bëggoon naa delloo ko deux mille cinq cent mhm. waaye mënu ma ko xam fan la dëkk foofu. Mhm, te tuur bi boo ko fàtte mun nga gis ni te benn yoon la ñu daje foofu moo ñu jàppale parce que dafa déggee ma ne ko dafa manqué si ci ordinance bi far du ordonnance bi pour ñibbi. mu leen kaay leen ma abal leen deux mille cinq cent. ci kanam kii mu yëkkati deux mille cinq cent abal ñu. ñu jël ni am mu ngi mu portable bi waaye même bu ñu ko waxee du ma xam tur bi parce que kii moo bindee numéro bi te moom <laughs> xam nga école guinéen yi mooy alphabet yi bu ñu ko bindee ku gis Sénégal fii doo ko mun a jànge mhm. problème boobu moo si moom laa am ci portable bi mhm. wallaahi yàlla yàlla xam na ne moom ba léegi maa ngi koy fàttale ko pour dinaa ko mun a gis pour delloo ko deux mille cinq cent mhm. parce yoral nit bor te njàppale la kooku neexu quoi dafa métti waaw kooku tamit mu ngi si sama kol bi ñetti yi nii coono nañ soono bi nga xamante ne lu metti la dama mu joon indi moto moo ko mënoon a jël fii si école bi yóbbu ko falee Wakam. moto barki yàlla mooy moto. Hmm? mu ngi nii seede. mu yëg ci moto bi moto bi waaw. naka pexe. ak tànk bi. mooy waaji bi jóge fii léegi sama. Hmm. trois roues yi. Hmm. sama jabar la. mu ngi dëkke Wakam. kooku moo ko jëli soon nii mu ngi dugg fii après mu ne ma ne ko yóbbul ma ko. mu ñu bàyyi foofu taski bi borom taski bi mu ne ma léegi a ah, da ngeen may jox tuuti ma baal leen ma ne ko yow bu ñu fii ay de kilomètres nga ne ma dañu kii ma yëkkati mille mille franc jox ko mu ma mille franc bi ndaw na <laughs> ma ne ko léegi loo bëgg mu ne ma mille cinq cent ma yëkkati jox ko ñun ñu dem suñu yoon wax bi mm-hmm. nii la demee mm-hmm. waaw képp li nga xamante ne na métti na métti na trop métti na te euh, ban numéro téléphone ngay joxe pour ku ko laa yore fii Mhm. sa numéro wala numéro papam numéro bi numéro papa ji mu ngi fi kon ko déggul olof est joxel numéro rek joxel ñaari numéro bi waaw sa numéro joxel waaw jëlal. 76 585 49. 95 95 76 585 49 95. waaw beneen numéro bi sa numéro. Pape Cissé. 77. 252. 252. 36 cent 252 36 44 waaw am na Orange Money am na Wave mhm. képp ku ko ko a jàppale rek. aussi man euh, Wave laa am. waaw waaw ñaari numéro yëpp daal ku ci bëgg def ndimbal rek euh, boo ko defee ñoom dinañ ko jot li ci ëpp solo daal mooy suñu doom ji na daal di jóg nekkaat ci jàmm dellu ci ay activité am ndax nag euh, xale la bo am mande ci ay waajuram euh, bëgg ay waajuram am 18 ans kese hmm. kon nag ñu koy ñaanal mu jóg ak jàmm baaba looy tàggoo ah man maa ngi leen di gërëm mhm. di leen sant sant borom mhm. ma ñaanal leen ñaani ci jàmm ak wér yaram ak gudd fan yàlla na ngeen dem ngeen avancé gana ëpp lii yàlla may leen wér jaram ak gudd fan mbooleen lu ñu soxla yàlla nañ ko yàlla xettali xettali mbooleen banu aadama ma jërëjëf waay kontaan naa jërëjëf waaw Pape kontaan naa si Pape Cissé mhm. ak euh, colonel mbay ñoom ñëpp kontaan naa si mhm. leen quoi mhm. parce que nit ki boo nekkee si dëkk te amuloo njaati gi dafa mel ni dunduloo si aduna quoi waaw maa ngi leen di ñaan gërëm leen bu baax jërëjëf waaw. Mhm. moom tamit waaw euh, maa ngi leen di ñaanal yéen yëpp waa rajo bi. Mhm. Euh, télé bi 7TV télé bi. 7 tv Mm-hmm. maa ngi leen di ñaanal noo boñ ñàkk boñ moo kii. la noonu la sax <laughs> maa ngi leen di ñaanal di mm-hmm. gërëm quoi. Mm-hmm. merci jërëjëf waay kontaan naa jërëjëf Baba jaaraama kon nag ni mu ko waxee rek euh, muy suñu rakk di suñu doom nañ ko ñaanal euh, bu jàllee rek euh, ngeen jàppale ko. Ah, daal di koy dimbale lépp lu ko waaye mën a dimbalee rek gis ngeen condition de vie bi. Euh, ni mu demee fii ñu nekk dañ leen fi abal ñu dëkk fi mhm. muy loo xam ne lu yéeme la euh, metti na waaye nag euh, yaay ji mi ngi toog di mooñ papa ji li mu xamoon yëpp def na ko ñoom ñëpp kenn déggu ci olof da ngay bëgg dem ñaani pour ñu dimbale la mais déggoo olof daanaka ñu ci bëri ah, duñ la mën a dégg li ngay wax waaye nag di wax ni rek nañ ko jàppale moom ma ta mu daal di jóg ci ni mu gën a gaawee may jaajëfal bu baax a ñi nga xam ne ñoom laa àndaloon ci liggéey bi ñu ëpp ci solo lool lool ndax boo leen gisee lii yëpp ñoom ñoo ci mel ni Papa Diop nekk ci wàllu cadrage bi Mouhamed ak euh, ki nga xam ne mooy Souleymane Sy euh, ci wàllu montage ñu ànd ceeg Lamine Mbeng ak ñi ci ginnaawam yëpp fàttewuñu kenn Papis mbay waa production ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal euh, Perlo sama goro ci wàllu logistique bi. yéen ñëpp ñu ngi leen di jaajëfal ki wax ki koy seetaan ak ci ëpp solo mu yéen amuñu seen fay ba tax na li leen di wax mooy fi amaane la di leen ñaanal jàmm di leen wax ba beneen numéro incha allah sur la 7 TV ci seen émission 7 voix du cœur merci beaucoup à